ñëw na El Malick Ndiaye le plus jeune président de l'Assemblée nationale d'un moment à l'autre ñu daal di tàmbali li nga xam ne moom mooy la séance plénière jëm ci li nga xam ne moom mooy euh, euh, examen euh, des projets de loi suivants jëm ci au conseil des collectivités territoriales ak itam li nga xam ne moom mooy conseil économique social environnemental bienvenue dal leen ak jàmm yéen ñi nga xam ne yéen ñuy bàyyi xel que le président de l'Assemblée nationale na xam ne mooy ci Assemblée nationale bi la gis ngeen les secrétaires élus le ministre de la justice mi ngi noonu le ministre de l'emploi Abass Fall euh, moom itam daal dina ñëw deux moments l'autre ñu euh, delloo kàddu gi bu ko defee ñu mën a déglu le président de l'Assemblée nationale ci li nga xam ne moom la ñu war a waxtaanee tey fii ci Assemblée euh, nationale bi la lii nag dafa bokk ci ponctualité voilà lii mooy euh, Pape lii mooy ponctualité lii mooy pragmatique 10 heures jot na président ñëw na ñu déglu ko léegi d'un moment à ci kàddu yi nga xam ne daal dina ko yëkkati euh, gis ngeen député yaa ngi noonu di ñëw ba léegi euh, du yàgg léegi ñu daal di tàmbali président ngi noonu d'un moment à ñu jëm ci li nga xam ne moom la ñu waxtaanee projet de loi numéro 14 2024 portant abrogation de la loi organique numéro 2012 28 du 28 décembre 2012 Bouna Seck le coordinateur JPS maa ngi lay nuyu bu baax la modèle de la jeunesse sa xarit ngi noonu El Malick Ndiaye jërëjëf euh, fonctionnement du conseil économique social environnemental et la loi organique du numéro 2016 2024 Euh, du 14 juillet euh, 2016 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil des collectivités territoriales. D'un moment à l'autre, euh, le président de l'Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, mi ñu ministre des infrastructures des transports terrestres et aériens la mu fa toog yàggul tey mu ñëw toog fi nga xam ne moom mooy ci fauteuil euh, bi nga xam ne fii la euh, le président Habib Thiam toogoon ñu déglu salaamaaleykum wa rahmatullah mesdames et messieurs la séance est ouverte mes chers collègues j'ai reçu de Monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux, une lettre demandant la radiation de notre collègue Tcherno Alissi. J'ai également reçu les lettres de démission de leur mandat de député de Monsieur Dekefal et Tcherno Alissi, candidats élus euh, respectivement sur la liste proportionnelle de Samoussa Kadou et sur la liste majoritaire de PASTEF les Patriotes département de Dakar. Acte leur de leur démission qui seront immédiatement notifiées à Monsieur le Président de la République conformément aux de l'article 7 de notre règlement intérieur. de pouvoir à ces vacances et en application des dispositions de l'article L154 du J'invite messieurs Pape Djibril Fall et Mam Omar Ndoye, candidats non élus, respectivement sur les mêmes listes, à venir occuper leur place dans l'hémicycle. Monsieur les huissiers, veuillez installer monsieur les députés. Merci beaucoup. Par ma voix, l'Assemblée nationale vous souhaite la bienvenue. Mes chers collègues,